si ndigali sëñ Babacar Mbacke gi nga xam dama ko jotoon and ko sama mbokk talib diko ko ci marché bi diko laaj mi kessi yi bi ñi nga xam ne dañuy ki nga xam ne wacc liggey bu fassene ko euh, defar ba mu jekk jëblu ko sama borom ndigal lol nag sëñ Babacar Mbacke moom jox ndigal mo lu wër di laaj may wor diko laaj benn mbokk julit bu nekk ci marché bi bax lol ya nga def social gisuma ne man na jaante fuko kess sama diggante ak yalla man fekk ñu naa juroom juróom ñaar juróom benn kees ànd ko mbokk talib yi ki ba mo waxee na ni fuko kess sama ndigal li sëriñ bi ak liggéey yàlla te bëgguma kenn xam ko mu jóg kees yi mat mu ne ma defar naa kees yi wante man yow yàlla nga yóbbul ma yi ngir yàlla coobal ma ko directeur ma ne ko naa si am naa si ndigal waaye ndigal lépp nag si sëñ Babacar Mbacké la soqee ko kon naa ko ne ko am na ko defal juróomi fukki kees di ko joxe addee yàlla kese sëñ Babacar ne yokk yàlla na ko yàlla defal sutura yàlla yàlla yokk alalam yokk suturaam yokk léppam ne ko yàlla bu baax ndax lu mu jëf mooy jëfal jëf yàlla kon kesso yooyu te dañu indiwaat tey ko ni ci morgue bi ko jëbël euh, directeur kaw euh, hôpital bi and ko sama baay ju baax ji jawara and ko sama naataange baajo and ko population kaw yépp indi ko jëbël ko hôpital bi ci turu sëñ Babacar bakam ko bëro kon jëf ji ndax sa bu amé ci baaxee rek lépp sëñ Babacar Mbacke la kon ñi ngi santal population kaw yépp di xamal né liggéey bi liggéey kaw la wanté nit ko wacc liggéey nga ñew abbu ay caisse yu jox la nga wara a suturaal nit ki yóbbu kessé ba ñew gisoo kenn ci morgue bi jarul la nga dugg ci hôpital bi wàcce ko nank waaye da nga ñëw ba ci buntu morgue bi gisoo kenn nga xalab kees yi kees yi yàqu amul njëriñ ndax kees yi dañ ko defal pour suturaal doomu aadama ndax nit wàcc na liggéey wàcc étage ay liggéey ñu ne nañ ko suturaal kon nag nañ bàyyi xel kees yi bu baax képp ku jël kees yi ni nga ko jëlee ci si njëkk na nga ko jëlee si njëkk waaye moo gën ñëw jël kees yi fekk ko fi kenn xalab ko te kees yi alal la jar loolu baaxul te li la kees yi waree noonu la waree keneen ak keneen kon nañ bàyyi xel kees yu baax Popenguine Kaolack ñoo ko moom nañ ko bàyyi xel. waaw bu baax ndax li ma si yëg daal tam si ndigal sëriñ bi dinaa ko ànd ak hôpital bi ànd ko ndigal sëriñ bi ànd ko waa Kaolack man daal li ma tax a jóg mooy liggéey yàlla si biir jaamu yàlla yi lépp lu ma yëg nii social dinaa si dox bu baax ndax léegi am ñu ju fekk ma fii sans placement délégué wala jawriñ am ordonnance taxawu ma ma jël ordonnance dem ma jàll lu am jox la ñu yóbbu te lépp nag maa ngi sante waa Kaolack ak marché bi kees yi maanaam dafa nekk loo xam ne tey yi nga loo tabax tabax lu muy kawe kawe tabax bi lu solo ndax yàgg-yàgg tabax fii nga bax kees nag jëfi yàlla la da lay topp ba sa bàmmeel ndax kër goo gis mu am meuble immeuble am ay ay un cent mille ci benn salon kees yi ëpp farata ni tabax na kër ba na gaañi te war nga am kees gu mel nii def ko ci biir kër ëtt nëbb ko utul néeg yi nga néeg yàlla fépp la xaj néeg yàlla ñoo jàpp néeg yàlla ah, jàkk kese la déedéet néeg yàlla mu ngi mel ni tey nga far kees yi mel nii utal sa kër néeg bu rafet fa ñaari kees yu mel ne ëllëg ku wàcc liggéey si kër gi guddi nga mën ko sutaal waaye da ngay gis kër booy di defarati ay cinquante millions kër gu rafet te amul néegi yàlla néegi yàlla du jàkkee kese yàlla mooy kees yi nga xam ne tey lu kër gi rafet rafet rafet bés dee ñoo nga wàcc liggéey si biir kër gi ñu ne am ne amuñ kees ñu ne jàkka yi nga jege amul kees kër nga jege amul kees loolu moom gàcc la ndax yor ay millions te fàggaloo ëllëg fàggoo ëllëg nga xam ne bés dina ñëw tax dee day bette kon non nga war a fàggoo gu bax def ci bir keut utal ko nek teg ko fa di baye xel ndax sa bu waxtu bi ñewé dula tag kon su ñewé bett ci bir keur gi nga na ah sangam sang baye mo na fa kess kess googu da ko liggéeyoon ngir ëtt bi ak wa keur gi ak wa mbedd bi la nga ne jëkkati kess gi nank ubbi dem jël kees gi suturaal sa baye tek ci auto yobbu te da nga da ngay taxaw dëkk ci koñtin tin na den ak jakka tabax immeuble bu baax den ak jakka ci bir koñ jakka jamul morgu lolou nako way ko waaye di xel yi nga jakka ci bir koñ war na morgu tabax kër gu mel ni R plus 3 R plus 4 te jakk ji nga nek dafa jullee amul morgo lolou gatch la ci yow mu tabax étage bobu yow mu tabax étage bobu yow nga jàkko jakk ji jakk ji amul morgo ba ci ñew nga wacc liggéey ñu ne amuñ jàkka dañ ko dakk jàkka 6 na nga jakk tukulóor yi te yow kon bëgg ne amul morgo te nga tabax R plus 3 yow la gàñ te amul sa amul fa morgo yalla ci yalla musul sentiment de de fierté sentiment de fierté pourquoi parce que je sens la solidarité vraiment de la communauté musulmane autour de l'hôpital Vraiment, on avait un souci avec euh, les caisses de la boîte qui nous manquaient terriblement. dès qu'on a lancé l'idée en parlant avec euh, euh, les représentants des usagers, immédiatement, ils sont partis sur le terrain, ils ont parlé avec les citoyens et des bonnes volontés sont levées. La dernière fois, ils sont venus avec cinq caisses. Aujourd'hui, il y a un, autre donateur qui nous a fait l'agréable service de nous donner aujourd'hui neuf caisses qui sont là entre nos mains. Et donc nous ne pouvons que remercier vraiment ces généreux donateurs. Est-ce que vous avez senti l'appui des populations sur l'hôpital Oui, nous l'avons bien senti. Et euh, en premier lieu d'abord, dès qu'on a lancé la journée de nettoiement, vraiment le plus grand citoyen de cette ville, Cheikh Maïgas, immédiatement nous a reçus et puis il a appuyé financièrement même l'hôpital. Il a appuyé aussi par ses prières. Nous l'avons senti. Et depuis lors, nous sentons tous les jours quand même des avancées, de bonnes volontés qui se manifestent, même l'appui de l'État. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de, ces prières, de ces, bonnes personnes, de ces généreuses personnes qui, nous ont devancés dans le travail. Et les citoyens aussi se mobilisent quand même tous les jours, nous sentons qu'il y a un appui substantiel au niveau de la population. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la protection de ces, caisses-là Pour la protection, c'est assumer notre responsabilité. Parce que ce qu'on nous a donné, on l'a confié. C'est la communauté qui l'a donné à l'ensemble de la population sénégalaise, représentée par l'État, et nous, nous sommes là pour servir aussi l'État. Donc nous le mettons entre les mains de ceux qui sont responsables de la mort. Et nous leur demandons de bien gérer ça, sans faillir. Donc toute personne qui aura besoin de ces caisses-là devra quand même nous donner des garanties pour que l'on puisse retrouver, pour que, pour que la caisse soit restituée en bon état.